d'autres bon, interventions. Merci beaucoup, hein, Nourou. Euh, vraiment, <laughs> c'est pertinent. Hein. Maintenant, juste préciser que je ne suis pas anti-Bitcoin, hein, je suis pro-Bitcoin même. Alors, <coughs> mais j'ai des réserves quand même, euh, voilà, si qui y a nos points y a qui y a qui quoi. Euh, légui, après, voilà, euh, je suis entièrement d'accord avec qui au-dessus. Hein. Maintenant, euh, ce que je demande, moi, euh, qui est régularisation, naturellement, parce que mënul ñàkk quoi <laughs> c'est parce que quoi qu'on dise aujourd'hui les États ne vont pas se laisser faire ça c'est une évidence pour man et que aujourd'hui comme tu le dis euh, si les États-Unis décident euh, d'interdire ou bien de rendre illégal le bitcoin la détention de bitcoin c'est que voilà euh, ça va collapser ah loolu waxatuñ ko sax parce que peut-être que aujourd'hui d'ailleurs la preuve sax li tax bit bi jógaat nii ressourcé wu carrément après les interdictions faites par la Chine yi nga xam ne ñoo taxoon bit bi perdre ay cinquante pour cent de de sa valeur aujourd'hui lii loolu euh, il suffisait que États-Unis jël même mesure bi voilà <laughs> on peut dire que le bit euh, même bu deewul mais euh, voilà dina dina dina dina dina jege dee parce que quoi qu'on dise aujourd'hui le système en tout cas financier mondial c'est les États-Unis et non la Chine qui fait que Chine li tax bit bi survivre aux mesures yi nga xam ne moom la Chine jël c'est parce que tout simplement derrière États-Unis euh, même bu fekkee soutenir uñ directement le BID mais ils l'ont soutenu indirectement en acceptant tout juste les les, les ETF quoi euh, ETF yi nga xam ne dañ ko arrimer au BID maintenant loolu c'est une manière un peu de dire aux gens ok bon c'est vrai que nous pour le moment on n'accepte pas le BID mais on accepte que les gens puissent détenir des ETF euh, sur le BID euh, ba pare ñu mën ko coter sur les marchés financiers bon loolu tamit c'est parce que derrière ils peuvent euh, contrôler ces ETF moo tax ñu accepter ETF pour dire que aujourd'hui demain il suffisait que les États-Unis en tout cas prennent des mesures sévères contre le Bitcoin c'est que le Bitcoin honnêtement je dis pas que dina dee de mais euh, dina perdre beaucoup beaucoup beaucoup de valeur sans les États-Unis le Bitcoin ne peut pas aller loin pour man c'est c'est c'est une évidence quoi loolu c'est une évidence euh, maintenant bon dommage que nekkuma di bind parce que <laughs> damay damay damay damay dawal quoi du coup je, voilà je pas j'ai pas j'ai pas tout retenu peut-être que voilà am na benn point qui me vient par rapport à l'interventionnisme des États quoi pour le cas de la France ok euh, les États comme ni nga wax euh, dañu def euh, ils ont fait un système de prêt aux entreprises ok mais loolu c'était juste pour éviter euh, d'intervenir mais création monétaire bi état def en ak banque centrale en réalité banque centrale yi réalité euh, c'est ñoom ils pas injection de liquidité bi en réalité ils viennent acheter <laughs> les les les obligations euh, d'État yi nga xam ne les gens le détiennent et que les buñ ko buñ ko jëndul euh, peut-être yooyu ça va chuter et que ñi ko détenir seen ils vont voir le portefeuille fondre comme comme du beurre quoi maintenant pour éviter ces ces ces ces situations de catastrophe moo tax ñu racheter euh, <coughs> ces dettes nga xam ne amul amul benn njëriñ en fait ay carton lay doon en réalité finalement bu ñu ko jënde li ñu koy def koy détruire même bu ñu ko waxul en réalité euh, c'est ils vont dañ koy détruire tout simplement parce que xam nañ ne duñ ñu a rentrer dans leur fonds du coup bon maintenant le cas de la France boobu c'est pour man boobu boo gën a pire parce que <laughs> bu ñu ñëwee defal leen ay système de prêt yoo xam ne am ngay am obligation pour rembourser ko pour man là c'est euh, def ay rachat d'obligation massif pareil brûler ko pour man loolu moo moo gën sax à la limite et que ce que j'ai dit tout à l'heure je dis pas que euh, injection de liquidité bi euh, que dafa dafa dafa am que des effets positifs non je dis waxuma loolu en fait ce que je dis dama ne injection de liquidité bi bo ñi ci ëpp en tout cas wala massive ñi ci ëpp yi ñu mën a situer aujourd'hui dans le temps boo xoolee ci après ay crise financière lay am moom par exemple crise année 30 wala actuelle bon bi ñu mujj bi ñu jàlloon en 2008 bi euh, <coughs> quiz de deux minutes de ce prime après ñu aujourd'hui ci bi nga xam ne c'est lié au Covid mais euh, Covid bi pour man les États ils ont même anticipé parce que crise de 2008 bi euh, situation de détresse bi nga xamante ni économie américaine bi dundoon na ko ba commencer di impacter les autres économies mondiales et que ça avait fait chuter le cours de des des des les cours boursiers mondiaux loolu c'est-à-dire que gravité euh, bi ñu yeggoon foofu noonu ba tax état intervenir pour def ay injection pour éviter catastrophe boobu noonu moo tax en réalité cette fois-ci les états s'y sont pris tôt en fait ils ont un peu appris les leçons <laughs> du passé parce que boobu ils ont voulu donner une leçon juste kii quoi aux financiers ñi nga xam ne ñoom ñooy créer tous ces produits dérivés toxiques yi nga xam ne moom moo amené à la crise ils ont voulu seet re- seetaan leen quoi ne leen bon comme yéen ko yéen a créé cette cette cette situation de crise donc euh, assumer mais ils ont compris que bu ñu bàyyi woon mu dem euh, ça allait être la catastrophe parce que c'est le monde qui allait partir excusez du terme en couille quoi léegi pour éviter loolu moo tax cette année quand même euh, ou encore daaw avec euh, euh, crise Covid bi bi mu amee ñu xam ne bu ñu amee yéexee réagir rek on va aller vers ça maintenant et parce que économie bi taxaw na rien ne fonctionne ils sont obligés de d'intervenir mënul ñàkk moo tax ma ne injection de liquidité yi pour man ce qu'il faut faire il faut peser sur une balance juste xool lan la créer comme effet positif ak lan la lan lay créer aussi ak effet négatif pour man euh, avant ñuy xalaat ndax on aura de l'inflation on aura nangam nangam on aura nangam nangam on est dans une situation d'urgence boo xam ne il faut mettre un garrot tout de suite pour pour l'arrêter maintenant après bu ñu paree nag ñu doog a xool est-ce que voilà lii est-ce que ceci ceci cela est-ce que koy ko yëgaan moo tax léegi boo xoolee bon ils sont en de <laughs> voilà jéem a euh, nekk ci politique boo xam ne jéem a wàññi un peu et tout pour ramener un peu les choses euh, à à, à l'endroit bien vrai que après ça va laisser des séquelles mais est-ce que séquelles yi ñu bàyyi bu ñu ko boo ko comparé ak séquelles yi mu naroon bàyyi bu fekkee dañu bàyyi woon lépp lépp lépp chuté. Euh, ban moo gën quoi pour man foofu laay wax en fait entre <laughs> le, le mal et le moindre mal quoi ban ngay choisir pour man en réalité injection de liquidité loolu moo ko dicté quoi maintenant am na ci yoo xam ne tamit ça arrive euh, yoo xam ne nii yooyu bon peut-être mën nañ ko comme li nga wax ah côté boobu je te rejoins parfaitement dessus et que loolu ça crée de de l'inflation naturellement parce que ça fait perdre de la valeur aux monnaies et que voilà euh, inflation bi moom moo ci topp d'accord mais pour le cas des des de crise extrême yi nga xam ne monde bi dafay toll par moment injection de liquidité yooyu noonu mënul ñàkk parce que bu ñu ko deful adduna bi day tas voilà en tout <laughs> peut encore que je suis pas anti bit quoi au contraire même <laughs> merci non amul problème amul en passant en Babacar en passant ñaata bit yéegi nekkee bitcoin wala Babacar yéegi wala yi def comme ci au niveau de des impôts après Sénégal itamit ñoom qu'est-ce que l'État prévoit est-ce que am nañu perspective wala dañuy toog di toog di xaar xoolee rek ba yëpp lu ñor dal suñu kaw. non j'ai pas j'ai pas compris Baye dégguma bu baax. je disais à Babacar ndax comme je je vois mi mi mi mi fig mi raisin si situation bi et que yaakaar naa ne war nga je pense que yow si yaa ngi liggéey au niveau des impôts au Sénégal et domaine xam ne peut-être j'ai l'impression da nga may bitcoin tamit quoi et puis la des questions mooy. et bon, malheureusement malheureusement booy wax day entrecoupé wu quoi du coup je perçois pas lépp mais du coup grand baay je te je te je te dirai nga bind ko message si suuf comme ça. Euh, ça ça ça passe ok. voilà parce que bon am na ñu bëri ñu bëgg wax depuis sànq ñu ngi xaar très patiemment parce que bon instant yi am naa envie lool tontu <laughs> euh, Babacar mais on va se donner rendez-vous prochaine. comme a ça. Crois on... Que, oui. Nous, on va continuer les échanges quand même. Ouais. Euh, comme nous, bon, je ci échange yi c'était vraiment pertinent. ko bokk. souci vraiment voilà. quoi on de l'autre et que la ñuy grandir Euh, c'est un plaisir vraiment de vous écouter et puis voilà, argumenter. Et avec des arguments très solides d'ailleurs, même si mm. quelquefois les points de vue peuvent diverger pour moi. Ce qui est solo, moi, la force de l'argumentation. quoi. Tant que pour moi, bon, on, on l'admet quoi, et que d'un petit aussi, même vous faites d'accord au Chilep, d'un petit Exactement. Non, c'est un échange. Franchement, c'était ça notre vision. C'était échanger en Wolof ce sujet bien, ça intéresse tout le monde. donc là je pense que ñëpp ñuy déglu jàng nañ si lu bëri après on n'est pas obligé d'être d'accord comme li nga waxe grand ku nekk tu as tes arguments après soo ku nekk après tu te fais ta propre idée quoi Baye Ibra bëgg naa la jox parole mais dafa am koo xam ne mu ngi toog depuis cinq depuis trente minutes quarante cinq minutes duñu xaar ndax dafa am nu mu bëggoon laajte donc je te lay ñaan rek ma jox ko parole rapidement muy Sarr Touba. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi leen di ziar di ziar mbokk yëpp. macha allah waxtaan wi waxtaan wi am na solo trop trop maa ngi doon topp depuis le début. Euh, da xam naa nag pet naa leen benn instant ci euh, tuuti te foofu sax laa bëggoon laa bëggoon intervenir euh, mooy benn benn période bu ñu doon wax ci ci ci ci waxu routeur ndax dafay am routeur bi accès direct lañ ci am wala ndax dafay laajte ay ay login mot passe genre yooyu noonu. Euh, xaw ma woon exactement ba xam routeur en tant que équipement réseau la ñuy wax wala wala wala wala ci jargon woo nu mu tuddati euh, blockchain bitcoin ci ci jargon boobu la mais su fekkee ne routeur en tant que équipement réseau waaw loolu moom day day laaj login mot de passe pour nga am ci accès euh, mais man plus fu ma bëggoon fu ma bëggoon ne poser sama question moo nekkoon ci. nu mu tëratee si si si ñaari accès la euh, axe bu bu bu njëkk bi mooy euh, bitcoin en tant que en tant que nu mu tëratee euh, côté côté valeur valeur d'échange bu mu am ni muy nekkee échange comme ni yeneen monnaie yi nekkee nekkee comme ni monnaie yi comme comme comme ni monnaie yi nekkee échange monnaie d'échange tey jii nii au Sénégal. ku bëggoon ku bëggoon euh, sànq sax um, yaa ko doon yaa ngi ko doon souligner Nourou mais comprendre ma nan lay nan lay doxee tey jii ku amoon sax ay bitcoin nga bëggoon ko convertir en en en wala contraire bi euh, tey jii nga am franc CFA nga bëgg ko yóbbu en bitcoin loolu naka lay naka lay demee xam naa ne bu fekkee ne boo jógee franc fa pour dem ay bitcoin da ngay da ngay jënd euh, da ngay jënd ay bitcoin mais par exemple benn bitcoin ñaata lay jar et su ne par exemple benn bitcoin nee nañ soixante mille lay jar. mais euh, donc ce qui veut dire que foog nga am plus de soixante mille pour mën a convertir sa xaalis bi nga yor en en en bitcoin euh, loolu sama compréhension boobu laa si am mais su fekkee ne du noonu nga rectifier ma expliqué ma invest bi nag tamit nan lay demee su fekkee ne da nga bëgg a jógee bitcoin sa xaalis bitcoin bi nga bëgg a convertir en en franc CFA loolu naka naka lay naka lay na naka lay naka lay demee tamit ndax sa euh, revient à nga nga nu mu tuddati nga jaay sa action yi nga jaay sa bitcoin yi nga amaat. Euh, ci ci ci liquide euh, ci ci franc CFA pour pour pour def conversion bi ou pas euh, leneen li ma doon laaj mooy plutôt côté côté clé privée bi parce que tamit côté côté boobu noonu valeur réserve bi mu am man dama am ay réticence ci ci côté sécurité bi. parce que euh, tout comme Toutmoussi <coughs> euh, li mu doon waxee sànq naan naan wifi euh, à tout moment mën nañ ko écouter mën nañ ci craquer affaire yooyu noonu pour man tamit clé privée bi ngay am noonu nga xam ne moom moo nekk sa caabi wu xaalis bi nga yor noonu yëpp si si bitcoin wala si si en tout cas si moo nekk sa sa luy sécuriser daal say avoir donc loolu noonu nu mu tuddati pour pour pour pour garder ko de manière sûre. loolu je trouve que c'est pas accessible à tout le monde. parce mm. que lan moo fi nekk au finish bu fekkee ne en tout cas genre une personne lambda laay wax euh, mooy euh, nga bind ko sa téléphone nga def ko si ay kippaas nga je sais pas. Euh, nekkul ay affaire yoo xam ne nii c'est facile à garder daal de manière de manière à ce que c'est c'est inaccessible par par par une autre personne donc loolu tamit man dama ci am réticence ci stockage u clé privée boobu noonu su fekkee ne mën nga ma ci indil ay piste euh, euh, wala wala ci ci ci loolu daal euh, sinon moom maa ngi rafetlu waxtaan wi jàngi naa si jàngi naa si lu bëree bëri maa ngi leen di remercier merci. ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay ñaari question yu intéressante déjà si premier bi instant bi nii benn bitcoin benn bitcoin mu ngi jar trente six millions de francs CFA maintenant li nit ci xamul mooy day mel ni nga jël lingot or benn lingot or. dafa am prix wam instant yi nii xaw ma prix wam mais disons ko benn lingot mu ngi jar mille dollars mais lingot or bi si boppam su la neexee mën nga ko baxal après nga def ko ay chaîne or ay jaaro or ay leneen loo xam ne or la loo xam ne da koy jaay maanaam danga koy tas bitcoin tamit nit mën na ko tas donc benn bitcoin trente six millions lay jar mën nga jënd zero virgule un bitcoin à trois millions zero virgule zero zero un bitcoin à cent mille et ainsi de suite tu vois lu donc loolu mooy déjà premier bi donc de la même manière que soo bëggoon jënd lingot or da ngay jël sa CFA nga dem si kenn mu jox la or bi nga jox ko CFA et que or boobu suba su yokkee da ngay dem nga wër kenn koo xam ne dafa bëgg a jënd or nga jox ko or mu jox la CFA ba c'est pareil ak bitcoin da ngay wër kenn koo xam ne dafay jaay ay bitcoin am donc da nga am ay nit yoo xam ne dañ koy jaay. Sénégal am na dañ koy jaay via de voilà ay groupe WhatsApp ay groupe Telegram et cetera am nga ay solution yoo xam ni c'est des solutions ay exchange peer to peer lañ mais ñooñu la plupart ma yi ma si xam en tout cas c'est ouvert qu'aux Européens aux Américains et ensuite solution bi am te moom la tamit suusi doon critiquer sànq te man tamit dama koy critiquer très fortement mooy plateforme centralisée yi exchange yi foofu ngay dem ibbi ay contact yooyu donc loolu moo am moyen mais dans tous les cas daal yow bés boo xasoon ma jënd say bitcoin wala sats maanaam zéro nangam de bitcoin soo ko buggoon jaay da ngay dem wër juste kenn koo xam ne bëgg na ko jënd nga jaay ko ko mu jox la xaalis c'est tout c'est aussi simple que ça quoi et man je suis totalement d'accord ak li nga wax dernièrement mooy sécuriser clé privée du lu yomb mais mooy tamit changement de paradigme bi ma doon wax sànq maintenant chacun est responsable en tout cas bitcoin loolu lay pousser nit yi que tu sois de sa xaalis nga bañ di ko délégué maintenant nag sentiment bi nga wax nii de sécuriser clé privée yombul sentiment boobu noonu au final moom moo animé ñu bëri ba am na ñoo xam ne dañoo créer ay entreprise spécialement pour garder nit yi seeni <laughs> clé privée tu vois contre un pourcentage en bitcoin ak yooyu donc ce sont des tu vois ce sont des entreprises yoo xam ne ils sont dédiés cybersécurité ils sont dédiés sécurité logique tu vois sécurité applicative et cetera cryptographie surtout ñoom dañoo créer ay solution pour soo fekkee yow da nga yor ay millions ci bitcoin te bëggoo ko sa bopp buggoo courir risque bi da ngay dem nga dénk leen sa clé sa clé privée ñoom ñu gardel la ko mais encore une fois c'est décentralisation contre centralisation ñu ngi jugee ci benn système de paiement peer to peer sans intermédiaire nga dugal si benn intermédiaire pour garder sa bopp tu vois mais am na et ça sax je le dis là ça ça fait partie des opportunités de business pour képp ki nga xam ni il est spécialisé si domaine yooyu noonu informatique sécurité cryptographie tu vois parce que plus ñuy avancer plus nit yi dinañ bëgg kenn ku leen jàppale pour ñuy sécuriser seeni bitcoin donc voilà quoi j'espère que répondre naa ces questions ok merci beaucoup ñoo ko bon là ça fait bientôt trois heures ñu ngi wax. Euh, c'est la room la plus longue ah oui <laughs> oui dafa leer. la plus la au niveau des antagonistes mais dafa neex dafa neex. man man dafa neex franchement man j'aime j'ai beaucoup aimé donc euh, comme je vous dis je suis obligé là de laisser parce que je commence à fatiguer je dois faire d'autres trucs aussi et j'imagine que ñëpp ñu fi nekk aussi. donc du ñuy def mooy. je sais je sais. <laughs> mais bon Nourou affaire yi gudd na trop nag mais bon xam naa ne damay mujjee bàyyi rek mais am na yu ma ci bëggoon participer vraiment parce que débat sànq bi dama intéressé xam nga man ak presque bon am na côté boo xam ne jubóowuñ ci quoi. Euh, mais euh, xoolal mais Baye Ibra Baye Ibra waaw surtout grand Souzy moom xam naa ba mu commencé dégg moom rek laa xam ne c'est un vrai gardien du temps. <laughs> mais gars yi man je vous invite vraiment. mais dimanche ñu waxaat rek parce que day ñëwaat quoi su fekkee ne. il faut il faut il faut il faut que suivre leen affaire bi topp ko euh, notification yi. donc du je vous invite semaine prochaine franchement dimanche prochain parce que Abdoulaye Ndiaye. c'est c'est un gars boo xam ni moom donc c'est un économiste loolu lay def loolu lay jàngale. Mm-hmm. mais c'est quelqu'un aussi qui est vraiment passionné par Bitcoin. donc man peut-être am naa sama xam-xam boo xam ne jàngee naa ko école mais je suis pas un économiste tu vois. Mm-hmm. parce que parfois dinaa bëgg répondre yenn affaires yi grand souci mais j'ai juste un argument finance ou un argument. Euh, informatique, tu vois. <laughs> Alors que mon mieux, qui ou quoi. Donc, je vous invite vraiment tout le monde euh, à la même heure à la même heure ce sera 16 heures heure sénégalaise 17 heures heure de Paris xam naa ay 10 heures voire 11 heures pour suma mbokk américain ak canadien donc voilà quoi donc du coup man je laisse la parole à tout le monde pour ngeen mën tàggu ba ñu commencé par yow Baye Ibra voilà voilà vraiment kontaan naa trop si débat bi c'est domage que temps yi moom dimanche bu ñëw nu ma koy teglee c'est un peu difficile pour moi ma mun a toog sax concentré wu jël note <coughs> joxe samay samay intervention comme je le veux mais bon c'est pas grave toute façon kontaan nañ trop si débat yi échange d'idées yi et lii da ci baax surtout euh, que ku nekk côté bi nga féete ñu échanger génne les avantages comme les inconvénients yi nga xam ne bitcoin am na ko c'est très intéressant mais juste balaa may tàggoo fàttali gars yi ne leen euh, xam naa ne logique bi tax a jóg euh, le bitcoin am na yu bëri yu ñu ci échappé surtout grand susi yi nu ko gëstuwaat surtout xoolaat white paper bi fàttaliku la crise des des années 2008 xoolaat aussi que bu mu fàtte ne le bitcoin était dafa am ay unités très limitées qui se limitent à vingt et un millions et ça joue un rôle très important par rapport à l'inflation bi mu doon wax et tout ça quoi aussi beneen côté bi nu mu amee ay doge kilo et tout ça bu bitcoin aussi mën naa ko tuddee man personnellement un dollar kilo c'est normal pour le moment ñu arrimer ko au dollar mais son but c'est de tuer demoon na fi ba soixante dix mille dollars la fois passé gis nañ ne mu jékki-jékki wàcc parce que gars yi dañ def ce qu'on appelle prise de bénéfice et loolu laa doon waxtaan ak Babacar Bepass ma ne ko parce que ñooñu ay investisseur lañ amuñu esprit bi nii la philosophie du bitcoin donc duñ comprendre c'est normal mu wàccaat loolu aussi foog ñu siy bàyyi xel mais sinon maa ngi gërëm ñëpp di bége ñëpp di wax gaa yëpp bon dimanche et salaam quoi merci beaucoup merci beaucoup Baye Ibra ñu dem si beneen baay bi Baye Madické. waaw jërëjëf Nourou wax dëgg yàlla tey moom euh, képpangu gi am na solo lool wax dëgg waxtaan wi euh, dafa kayoon lool wax dëgg yàlla gars yi ngi nekkoon si aras moom ci si biiram koom-koom day ñoom seen wax dëgg yàlla ñu ngi rafetlu bi ak ñi fi teew ñëpp di sant ñi fi teew ñu tàmbale ba tey ñoom Malle Tek ak Babacar Sow <coughs> si euh, Baye. ak ñi si suuf yëpp ñoom ñu mu ni ñoom ah, Babacar Looy tamit xam naa te de ah, yaram xaw a sutati waaye te di yàlla defal ko jàmm def ñu ñoom ñu nekk si ñoom Seta mais Awa Ibra gars yi da ngay daal ñu nuyu ñëpp a dëgg yàlla sa Touba nuyu dimanche bi nekk fële ngeen nekk ngeen ah, suivre room bi ba a jot notification yi. à temps mën di seet toog di waxtaan day tamit Babacar bi nekkee impédé man yaakaar naa ne dimanche prochain di dañuy mën a gën a waxtaan ak moom ñaan mu teew fi jërëjëf rafetlu liggéey bu baax jërëjëf jàmm reprenons jàmm fi ñu féer ci àddina bi Merci beaucoup, Baye. Merci beaucoup, Baye. On donne la parole à Malé. Malheureusement, tu n'as pas de poser d'autres questions, mais voilà quoi. su fekkee yaa ngi dégg Malé. Ok, donc du coup, Toutmoses. waaw Nouroum noo lay remercier rek comme d'habitude jàng nañ si lu bëri tam si affaire économie xam naa maa ngi remercier tamit ñi nekk si stage bi euh, audience bi xam naa ba dimanche prochain incha allah. merci beaucoup merci beaucoup Toutmoses Babacar Babacar. les remercier. je pense que dégguñu peut-être mi ngi dawal ba léegi grand souci les remercier aussi. waaw maa ngi remercier ñëpp di euh, affaire bi amoon na solo euh, euh, dama damay damay xoos bàyyi rek mu ngi naan des crises de de tout ça crise moom c'est et c'est partout soo leen seetlee même dans le domaine médical de mais ce sont les pandémies jarul ma kay may kii am na ci àdduna bi. aussi euh, pour juste wax leen je suis pas cryptosceptique mais je suis crypto réformiste. Oh. donc dama bëgg rek ñu xam ne ñu saisir chance bi def ko def ko de sorte que dañ ciy gis suñu bopp mais pas pas ñu ñu annuler ko complètement dama bëgg rek ñu ñu trouver les les voies intelligentes pour euh, mën mën ko euh, appliquer au au domaine économique mais pas mu ñëw effacer l'économie complètement foofu rek laa ciy tëjee di remercier ñëpp daal. merci beaucoup di la remercier di la remercier bu baax a baax Pape Thiam. waaw gars yi di leen béggee bu baax a baax affaire yi moom nuuru yow moom di la ñaanal di la sant di la gëm parce que comme sa tur mu ko waxee rek nuuru quoi c'est la lumière leeral bu baax. macha tey tey aussi discussion yi moom c'était vraiment enrichissant. parce que mais Pape kontaan nga de lii sa domaine la woon. yee bu baax a baax kontaan naa trop boo tax tey moom aussi osage quoi <laughs> wax dëgg yàlla gars yi te aussi voilà quoi comme tous les dimanches moom ñu ka xam ne yaa xamtuñ ko woon sax ruum bi tax na ñu yaa xamtu dimanche yi quoi parce que lii moom voilà dañ fiy jël ay xam-xam. moo tax di gërëm di gërëm gars yi yëpp grand Malé tonton Ziz Babacar Baye Sousi ñëpp surtout yow mention spéciale quoi jaajëf. non ñoo ko bokk ñoo ko bokk façon c'est le bitcoin c'est open source ñun lu ñu jëlee si mode open source moom la ñuy delloo open source donc je vous maintenant vraiment ñëpp ñëpp ñëp nga xam ñu ngi si stage bi. dañuy déglu depuis le début mais ñi nga xam ni tamit voilà ils ont parlé ils ont donné leur avis on a débattu mais man ce que j'aime par-dessus tout mooy ici voilà suñuy débat c'est cool quoi c'est-à-dire ku nekk da nga jël sa temps nga expliquer say idées ñëpp di la déglu da nga pare après ñu tontu la j'espère que dina law incha allah ñun ñëpp ñu àndatoo di si jàng parce que man tamit jàng naa si lu bëri quoi donc encore une fois je vous donne rendez-vous ba dimanche prochain quoi donc di waaj a tëj bi xam naa dans cinq secondes quoi merci beaucoup à tout le